maître Ciré Clédor bind Antoine Félix Diome ngir naqaru li mu jàpp ne violation la ci ay droit am waaye itam droit client am biir Ousmane Sonko yi mm-hmm. avocat yu Ousmane Sonko dañu ñu yoon di nak karlo bi nga xam am ci kër Ousmane Sonko fortement de sécurité yi nag daal taxaw fa kenn mënu fa dugg kenn mënta génn maître Ciré Clédor Ly nag ay yooni yoon mu jéem a dem tey ci kër Ousmane Sonko mënta nekk rawatina ko condamné sax ñaari éducation yoo xam ne nañ ko ci ah, si botet taxaa mula mu di bind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 corpic bi sax surtout avocat Ousmane Sonko dañu fay dem ñu di leen gaase te ñu ko nag ñooy def ordonnance jàpp na nag daal ci wàllum ah, boo demee ci réew yi gën a dellu ginnaaw nga xam ne daal foofa dictateur dëgg moo fa am sax façon yii ni mel yi ñu def nii avocat yi duñu leen ko def di leen xañ seen liggéey xañ ñu gis seen avo ba di leen sax gaase mu jàpp na jaay duut nee na daal ki ñetti fan delloo fi ko Ousmane Sonko juróom-ñeenti yoon saa yu demee ñu tere ko tamit nag kat moom daa soxla client am client am itam daf koo soxla ginnaaw bi ñu ko ah, condamné kon soxla na kan toog communiqué ñu waxtaan ci yan pexe la ñuy taxawee ci li nga xam ne ah, dem na ko waaye daal jàpp na ne jamono jii kat daal dañu koy tere ngir mu amal liggéeyam mook ay mook avocat am mu bind ko mu naqar naqaru li mel mu wax ak nag ñii nekk ci Ousmane Sonko ngir ñu mën leen a bàyyi ñu amal.